ci yenn kaay yi ci yenn kaay yi El Euh, ak El Hadj Ousseynou Ndiaye jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne rek moom lañu xëyandoo ñu daal koy door ak mbirum Ousmane Sonko ak assemblée nationale mbir ya kay gaaw na ba mel ni renn xarum tudd bismillah rek lañ doon déglu la tribune yéen kaay duñu xamal ne assemblée kay teg nañu jéegu ba ba ci lu jëm ci wàllu ko Ousmane Sonko démb koy waxtaan yi nga xam ne rek doon nañu ko amal ngir xool mbirum Ousmane Sonko moomee agana nan lañ cey doxale yéen kaay yeneen i ndaje yoo xam ne itam wares na koo amal fukki fan juróom-ñaar ci weeru février boobee nag moom mooy dajale député yi Le Soleil yéene kaay xamal ne mbirum Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne rek jotoon nañ leen a teg loxo muy ñaar fukk ja ji nag bàyyi nañ leen am na li ci du toll ci ñaar fukk ak benn yoo xam ne rek ñoom itam dañoo tëggatémbe réew mi quotidien yéene kaay xamal ne Moustapha Niass moom kay moo d'accord ci lu ne jamono ji nag ñu gaawal la ñu doxal ci mbirum ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko lisi ko yéenikaay ne ko gaawal googee kay fa ko jëmee neexul ndax jamono ji dañoo mel nag ku ko jëmee seeraas maanaam Ousmane Sonko moomee mel ni ku ñuy bëgg a faat xam ne lépp loo xam ne rek jëm na ci muuri mbalaanum kiiraama démb fukki député ak juróom dañu ne nañ ko ñore ba mu sat wecc laa wax ñaar dong ñoo ne bu ñu ko ñore muy Cheikh Abdou Mbacké ak Yaay Alabis

sëriñ bi da koo aay ne ko bu fi amee du ko laal direct news yéenekaay ñëw ci mbirum Adji Sarr ak kàddu yi nga xam ne rek jotees na ko wax yi nga xam ne moom Adji kay dafa mel ni sax da doon tergiversé maanaam daal di jaxasee kàddu ndax nee na yoon yoo xam ne jot nañ ko violé Adji doon na xam le ne Ousmane Sonko ba mu ko njëkkee fudd yéenekaay gi duñu xamal ne da ko doon wax ne ko maanaam lii nga xam ne rek yaa ngi ma koy defal am na xale yu ñu xamal ne ak lu mën di xew daal jamono ji coow la ma ngay gën di jambaajoo ci réewum Sénégal ak ci mbirum Ousmane Sonko ki nga xam ne rek moom moo di Sidi Ahmed Mbaye moom kay moom la coow la ne rek moo jëli woon Adji Sarr bis ne jàppoon nañu ne dañ ko viole bu dee nag ki nga xam ne rek moom moo di Maodo Malick Mbaye moom kay nangu na ne Sidi Ahmed Mbaye moomee jarbaatam la te ci këram lay yeew mu yéen waaye nag xam na ne ne moom nag dëggu na lool ci wàllu politique waxuñ loolu Alentine ci laas yéene kaay dina xam ne jamono ji nag lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllum démocratie dafa mel nag moo amatul ci réewum Sénégal mu xawee ko ca kaw ne der ci suuf suuf le quotidien yéen kaay di ñu xamal ne sëriñu Ousmane Sonko kay wax na sëriñ Cheikh Abdou Mbacke moom kay la mu xam ne moo di gisante naa xalif général des mourides sëriñ Mountakha Bassirou Mbacke daal di koy xamal ne ko mbir mii nag am na ak complot goo xam ne am na ci yéen kaay gi di xamal ne ba mu ko ko waxee tey njiitu réew mi Macky Sall profito gaaw woo xalif général di ko xamal ne ko yëf yi nag mbirum privé la man daal taqew ma ci laalew ma ci eewaay eh Elhadji Ousseynou Ndiaye ah,